góor amul jigéen amul mag amul ndax amul kii coloration bii la bokk ak bële la bokk ñëpp a ñëw tribune bi à part les institutions xammee wu ci fu ci kenn bokk te loolu am na solo te yaakaar naa ne du loo xam ne lii kenn ku ñëw fii non seulement même bu ñu la invité yaa fi indi sa bopp donc loolu aussi dafay wone ne ñoom aussi ñëw nañ spontanément bokk ci mbir mi vraiment ñëpp ko bokk ñëpp kontaan nañ ci na monsieur le ministre euh,